Bonjour à tous. Le président sortant du conseil départemental de Kaolack a doté les postes de santé de Ndofane, Kaona, Latmingué et de Keur de lits d'hospitalisation et d'infrastructures sanitaires. Baba a également pris en charge la réhabilitation de deux postes de santé. Nous avons compris pour bien meilleure santé, une meilleure euh, gestion de la santé de la mère et de l'enfant, euh, appuyer certains postes santé qui étaient sur la compétence des de la commune Kër Baka, a connu une extension, mais également nous avons, nous avons profité pour réhabiliter tout le bâtiment, corps d'état civil compris, mais également nous venons de les donner également un appui en ligne. Nous avons également dans la commune de Latmengue pris en la réhabilitation de deux postes santé qui étaient en situation difficile. Le poste santé de Kumbal, mais également de Karali Bassine, qui a également connu des difficultés. Et nous avons donc réussi à

Demba Ndiaye par rapport à la construction d'une unité de néonatologie au niveau du centre de santé. Je que ce plaidoyer a bien été entendu parce que le président a favorablement réagi pour la construction de cette unité de néonatologie que nous venons de visiter. Mais en dehors de cela, le président nous a accompagnés toujours dans le cadre de la santé, de la la mortalité maternelle et non natale par la maternité du poste de santé de Kaon et la construction du logement du poste santé des, des qui étaient aussi des problèmes identifiés au niveau du district sanitaire de Kaolack. Ces investissements, nous les accueillons vraiment à bras ouverts et nous savons que leur fonctionnalité permettra de contribuer à la réduction de la mortalité néonatale et maternelle. Tous ces propos ont été recueillis par Mamadou Camara. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. dalee nag jàmm président sortant bu conseil départemental bu kaw Kaolack jagleel na poste de santé yi nekk Ndofane kawoon ca Latmingué ak Kër Bakka ay lalu hospitalisation ak it jumtukaayu fajukaayu jàppandal Baba Ndiaye jëlit en charge réhabilitation maanaam yeesal yoo xam ne dafa soxal ñaari poste de santé ñu teewlu ko. ñu lëkkaloo ak médecin chef de district docteur Seck Kaznak docteur Dembar Sall sa Ndofane kilifteefu également médecin chef Gossas ñu yóbbu ko sa Ndofane indi ko fii si Kasnack yóbbu ko si abattoir maa yóbbu ko centre de formation bi nga xam ne mooy formé xale yi dem si kër Ali Ba Sefaat euh, santé ba def ko si Koumbal euh, def ko it si kër Baka def ko si Kawoon ak abattoir ñu yóbbu leen lal yu baax la leen dimbale fii it si Kasnack bi nga xam ni gën ñëw nañ fii pour def solaire kii xam ne mooy madame Ndék nañu dee bëri na xale ñi jafe-jafe bu xale bi wérutlee ñu war ak ñi def ko fi fexe nag ba poste santé yi dox muy yor les échelons de gestion de la santé poste santé dafa a dox case santé dox centre de santé dox hôpital dox nga xam ne hôpital feebar yu métti yi rek lay jël ki xam ne dafa sibul rek jël mu hôpital ndax poste santé mën na koo faj mais dafay wane fekk fa lal fekk fa infirmier fekk fa personnel fekk fa équipement bu ko defee na sawar foofu docteur Niéné di médecin chef bu district sanitaire bu Kaolack di jàppaleen nañ ko district sanitaire bu bu la amoon na temps yoo xam ne amoon nañu problème courant mu nekkoon daf ñu doon dal ñu am ay coupure d'électricité ñu jooytu ko ko mu indil ñu installé ñu solaire ak chauffe-eau boo xam ne depuis bu ñu ko installé quand amatuñu jafe-jafe courant surtout ci maternité bi parce que xam ngeen ne accouchement yi guddi lay gën di bëri te di accoucher courant coupé dafay indi ay jafe-jafe buñ ko jooytoo loolu mu defar ko jour mu ñëwee ñu koy installé maîtresse sage-femme bi di madame Ndekki wax ko ne ko président am nañu beneen problème mooy xale yi juddu te am jafe-jafe ñun dañuy am problème fu ñu leen mën a hospitaliser parce que maternité bi dafa xat ci saa si la joxe kàddoom pour tabaxal ñu unité de néonatologie bi nekk suñu ginnaaw mënuñu am payam mënuñu am santam waaye yemul foofu district sanitaire de Kaolack dafa ëmb yeneen poste santé mu dem poste santé abattoir tabax fa logement pour la sage femme logement bi mu ngi en cours de construction mais aussi au niveau du poste santé de Kahone maternité bi dafa xatoon lool donc ñu yaatal ko defaraat euh, toilettes yi ak yeneen travaux yu ñu fa def boole ci aussi ak ay lal yoo xam ne indi na ko. Baba Ndiaye ak docteur Ñene sekk nag ñu ñu bàyyi jile kàddu ci micro Mamadou Camara mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen ñu yendoog jàmm.